jërë ngeen jëf mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay tey nag ñi maa ngi fi dalal ñaar ñoo xamante ni dañoo bokk ci mu wéyal tuuti euh, mu dox ci diggante Mass Bantamba ak ki nga xamante ni nii mooy 1 euh, Giga mbokk yi mu nekk ñaar ñoo xamante ni yàgg nañoo tëkkante yàgg nañoo bëggante mais kombaa bi li tax taxawul ba tey bokk na ci li ma jaaxal ndax ñaari mbër defe naa bu ñu bëggantee promoteur yi bëgg fan lay calee moom xaw a jaaxal nag tey rek ñoom ñaar dinañ leeral lool ma bàyyi ñoo nuyoo ma mënul gudd ndax ñoom ñaar dañoo xiifante xiifante ba bu ma tijji sax lay nekk ma bàyyi leen nuyoo ñu doog a waxtaan wi un nuyu naa la. jox ko mu nuyoo xam bëriwul. <laughs> na jox parce que ñoom ñu moom moom ñu mu xam bëriwul jox ko rek mu nuyoo comme que yow lañ njëkk a jox amal respect si euh, Ouzin. waa léegi waa léegi waa léegi. amal respect ndax ndax man maa tijjil. Ouzin. Hmm. Sénégalais maa ngi leen di gërëm di leen sant. Mhm. boo duggee te boo tàppee. Mhm. ñu wax la kat mooy Mass Bantamba fi mu jaar si sport ba ëgg si fii moo gis. Mhm. du kii mooy tax may wax waxu làmb. yàlla xam na ne damaa xool yi samay morom parce que ñu raas. raasul laa dum ak la biir dafa am. kii coggal la. man raasul laa dum la bokkuma ak moom boo ko boo loolu bala muy leer ñu jug taxaw boo doon jënd xar ñu taxaw ku gën a njool ngay dem xool yi kii bokkuñu la raasam yàlla xam na ne bokku si làmb te raas bi maa koy génne si làmb.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 fépp soppee un Diga nekk rek waaw maa lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di gis yëg-yëg yi ci doomu aadama yi. Mm-hmm. man defaguma fi lu tax nit ñi di ma topp. Mm-hmm. mais maanaam Sénégal yi soxoruñ buñ gisee ngay wane fulla ak fayda ak jom moom la ñu yaree. Mm-hmm. di nuyu waa Louga bu baax a baax a baax di bëgg sama doomu nday ji ma àndal Seymar ngal di ko wax dundal waaw maa leen fay bu baax a baax. defe naa dama lay wax félicitation sax ndax ci victoire nga jógee. ah loolu fàtte loolu fàtte nañ ko. fàtte nga ko. barki Mouhamed. yaa ngi ci trois combats deux victoires benn défaite. waaw loolu la yàlla dogal de. Hmm. waaw nan waa jaamu gën. waa jaamu gën fa di nuyu waa Télimaam Jaara samay maire koñ samay paawi koñ waa waa Télimaam Jaara waa àdduna daal waa Touba. waaw fépp ndax man defaguma fi tax nit ñi ni ñu ma toppee nii wallahi azim. Hmm. du dara nag commencé gu ma defaguma dara mais dama gis rek daal dal sama xel ndax dama am ay papa yu may ñaanal am ay yaay yu may ñaanal. Hmm. samay maam samay nijaay Louga fan yi fa laa nekkoon 15 août bi laa ñëw. barki maam si yàlla ñëwoon noo si kon. non damaa ñëwoon rek xool ci dëkk bi yaa ma gën a xam xool waa xaar yàlla ak waa mafia boron son ak waa mbedd bu mag waaw man am naa fii kër am naa fële kër <laughs> lu ma doxandeem leer laa la wax waa Louga dañ maa yónni yàkkamti ma. am na ñoo xam ne amuñu kër dañuy wër taxawaalu rek. mu baag boobu boo yooyu de li may wax fu leer laa ko teg télé laa jàkkaar lool du ma gan ci télé. dëggantaan. Mass. oui Ouzin. Mass ana waa Thiaroye. ñu maa ngi leen di waa Thiaroye si maa ngi leen nuyu sama gars yi sama papa di nuyu sama yaay sama sëriñ. Mm. di nuyu Amath. mu amee combat day sonn jël mm. xaalisam bu weex tal. yaa ngi ci ñaari komba waaw Girido moom moo mujjee daan te Girido bi may daan. ban Girido bu yëmbal. Mm-hmm. tojul fenn tojul fenn ñoom Souley ñoom ñëpp ak Omar. samay samay samay samay sama staff. di gërëm Mandaw di gërëm Mansour di mm-hmm. gërëm kilifa yi ma wër si làmb mm-hmm. doon xale bëgg làmb aussi Ouzin man sax ci ñaata combat waaw euh, deux combats la am benn. kii daa bëgg làmb mais làmb bëggu tëjël sa làmb moo ñu bëgg tëjël sa làmmeñ danoo nekk si tale làmb soxla làmb moo ma soxla fasu génq nii làmb moo ma soxla kii raasam coggal la moo mooy li ma lay wax bokkul si làmb coggal la yaxam dafa dëgër Ouzin damay gërëm ñëpp. di leen sant lii ñu toog moo tax mu yal ma barki alxuraanu karim émission la ñu nekk tëjël sa làmmeñ ma wax la moo xam nga ne xëy wala. di ziar waa Caaro ñëpp <laughs> ñoom Ahmed dem bëri mag yi su ma amee combat. barki Seydina Mohamed dañuy dëgg seen yite. si Baye Mandione Xarim Ndiaye ñoom Ousmane Diop ñoom ñëpp ba si ñoom Ahmed dem ñoom. rëdd waaw yaakaar naa mën a giri ñoo mujjee bëri. non xaw na ma kaa xaw a fàtte tuuti nag. xaw na ma kaa xaw a waaw. mais sa diggante kii. waaw. bëggante ak ñemante bi ngeen ñemante lan la. wallaay lazim xam nga man samay bët la lay bañ. déedéet. li nga xam ne moom laa soxla bëgg ka te kii amul lenn lu mu def ci làmb te defuma ko. te li ma bëgg. moom mooy moom raas bokkul si làmb. su ñëwee ba que trois combats deux combats. mais day daw eh, ah, day daw déglu ma dafay daw déglu ko ma wax ma wax la. kii bu taxawee fi naan man ak moom ñoo yam ci làmb bokkuñu si làmb. sama première sortie àdduna dañ maa xam. Mm-hmm. deuxième ma bëre ñàkk. Mm-hmm. troisième ma ñëw bëre lu leer fu ma dem damay bokk. Mm-hmm. yamuma ngaaka yi man ma mbëru ngaaka. te yow da da nga mën a fecc. da neexal bés. damaa wax ci wax ji bay wax waxi fecc bëre bi dama koo làqee nee tege ko à côté bëre moo koy génnee man sama bëre du eh, tëb ñëw bëre da indi bëre moo jaaxal gars yi baal waxi nga moo tax <laughs> tungana lu dugg si làmb baax na ba booba ñu yàqal làmb ñu lay yàqal làmb loo def ko si loo def ci ah. koo daan nu mu wax mbër yi daan dama yoo xam yoo xam yow làmb xam nga ni ku ne xam nga dama ne eh. kum daan yow li ngay wax ak sa wax ju bari jii nga ñëw ñu bëri mu ëpp important li ma def si carrière yow defoo ko du yow lay tonton xanaa du loolu lañ bëgg tonton tel waaw xanaa loolu la ñuy laaj déggoo ma de waxuñu fi indi du bëre kii bis bu jëlee avance ma génne ko si làmb dootul bokkati si làmb kii dina mbër masuñoo dóor mbër ba suul ka laa la xool ma man ngay xool masuñoo jël mbër dóor ka ba suul ka mais yow bés boo ma jëlee ba suul ka yow si suuf si suul ka dama lay dóor ba jël sa bopp bi sa jëm ko mas arbitre mas sa jël làmmiñu nit lokki ka si avance bi wala dañuy takk sa wax yow wax ak yow wax sa waa dafa laa ñëwee ma pare te jëlu avance bi ñamuy xooli leen war a xooli raas bi bokkut si làmb Ouzin kii bokkut si làmb làmb sa race bu gàtta bi ca këmbeer bi man maa koy génn si làmb jeex après ma doo ko wax man sama condition du jéeg de physique contact naturel la yow xam nga li ma lay wax yow xam nga ne yàlla xam na ne boo jëlee combat mu dóor la nga daan yow ay ree sax nga ma def kii <laughs> danga maa def ay ree sax yow comédien nga ma jàppee comédien laa la jàppee bi yàlla xam na ne comme ndikki ndikke yooyu laa ko jàppee waaw léegi ma ne ko mu wax ñëwul doo waxaat waxaatal ma may la nga dem comme que da ne da ngay wax. kii xam nga lan moo ko tax da ngay këtt émission bi waxal tëjal sa làmmiñ nga wax. maa a wax. Ah, waaw waxal action. waaw noppi na waxal. kii xoola xam lan moo koy rey. déedéet maanaam daa def ci làmb lu ne. Mhm. te kenn dégg ko. Mhm. ma ñëw def sama première sortie mhm. yàlla may ma ci ndam. gars yi ni comédien la. ma jël sama deuxième combat. nattu dal ma ci ma ñàkk mais terewul waa ñëw bëre ba ñàkk de mhm. nekkuma dama ñëw taxaw foofu di arrière réglé benn paare barki Serigne Touba kii li ma dal bu ko daloon du bëre benn mhm. loolu fàtte naa ko li ma dal bu ko daloon barki Cheikh Moustapha Mbacke imam borom saam du bëre si ma demoon damaa tawatoon rek entraînement bu metti alimentation baaxul barki Serigne Touba Mbacke ma forcé lépp ndax laa ma jooju dama ko jëloon fonko mhm. mais ki ma daan ku xool ñi ma bëreel. Mhm. xam ni làmb moo waxut dëgg. Mhm. te loolu dootuñu dara ci làmb ndax am nañ suñuy grand frère ñu àndoo ñoom Talla Thiam. Mhm. ñoom Fodou ñoom Abo ñoom Paate waa Louga topp sama ginnaaw ñoom Amady waa Elton ba ñoom Papa Thié naan ma wax ko loolu amaana fibu ko. dinaa ko wax loolu nag. jéem a ko sib sax. ay bàyyi bu day bàyyi après dinaa ko wax. jéem a sib waxuma ak de. li ma la xamal waxal loolu rek laa tur nga am. Mm-hmm. ay dégg tur nga am waxal loolu rek laa wax nga tëb naan dinaa ko xam da nga mën a xam lépp. li ma la xamal su ma ko waxoon. li ma la xamal li ma la xamal su ma la ko waxalee fii adduna tas. waa léegi ngir yàlla. yaa nan bàyyi ba ma daan la ba pare Ouzin dëkk ma micro bi. nga xam dafa am lu ma la ko wax bu ma la ko waxee adduna tas. yaa mën a xam wallaahi alazim. kii dañ ko luxus pour te dire après boo ma dikkee ma ko rek ma wax la ko bokkul si si àdduna bu tëdd yi bokk bokkul si àdduna ak sagoom ki bala maa gëm ne ah xam nga ma la wax nit yi yooyu nga yow eh, nitu la la nit yi ndekee deer yooyu eh. bés bu ko dóoree këpp ba pare soo ñëwee ma wax la ko day daal ah, waxi xale waxi xale lan ay jeune lan man damaa teel a fo dama ne la teel a liggéey fi ma jaar sama carré doo fa jaar mécanicien mais léegi jaar si mécanique radiateur mhm. dawal moto di dawal oto kalando terrain terrain fan bokkum lan di dawal tere iligoo sax dama koy dawal waxal loo xam xam nga ne ku déglu li si émission lu góor yàlla di dawal ma ci toogee yommet laa koy def barki Cheikh Moustapha Mbacke imam xaw ma leneen de mais yii yii yii góor yii di def nii mhm. man dama koo fooyee ba jàll a damay foo ak ñoom nii rek di leen cons mais kii mënoo jël avance am gannaaw coow li. déggoo li ma moom moo ko bëgg bareel man coow li ma ko def man kii sama bët teguma ko ci moom kii deful lu tax ma koy jël. yàlla xam ne eh, xoolu xooluma la. maas même ah. ñëw maas même ñëw. kii ma koy jël day fekk mu def dara. xooluma la si raas. deux trois combats nga def. waaw comme deux victoires benn défaite. moom deux combats nga xool mën a giri la ma fa daj. kon nga xool mën a giri de. youtube a nga xool ko tuuti nga may ka tuuti état. gratuit koy may tapel a giri nga may ka tuuti ma. non nii mu takk ngemb. nii laa ko xamee gaaw. gisoo ko xanaa bi mu simee ko yaa ngi dégg ndëxëtal Seydina Muhammad gis nga kii bi ma bi ma bi ma bi ma bi ma bi ma bi ma bi ma bi ma alxuraan gars yi na ma barki yàlla dañ laa mere <laughs> parce que yow ñuy ñàkkal fayda barki Serigne xooli keneen bi ma ko woowee dama leen mais est kii bu ma ko jëlee gars yi man ab comédien la ñu ne ma non def na fi dara day gis nga mbooloo mi mi àndal ak yooyu wallaay na kii dama koy daan xooli ñeneen te Ousseyn yow da may dégg si làmb man kii teguma ko ma jiitu ci Oh. lool suñu fierté la te man damaa ñëw pour xeex pour indi caaro loo xamante ni day wees seen njort man caaro yi lay tiitarloo yëkkati ko niveau bu sori sama njort. yaa ngeen daw caaro moo tax may ngeen a daw laaxu moo tax may wax si làmb yaa ngeen a daw laaxu suñu ginnaaw ñun waa jaamu ngeen. voilà caaro yi buñ ko déggee si làmb mais est-ce que ñeme ngaa jël avance 1 giga. wallaay lancé Ouzin bu ñu ko tegee fii moom may la si ma ci sama gars yi bu lee dinaa yóbbaale avance bi yàlla naa dee dama koy tas parce que kii xooluma ko ah, ka mu simeeku ñu def fi a ma nee nañu simeeku moo ko engagé. waaw barki sëy bu dee solul ñaari caleçon. wala solul ñaari eh, pàcc. Ouzin ma bàyyi lamb ji. Ouzin man du ma tegle. eh na ak yow séquma ko ak yow naturel laay demee mm-hmm. kon looy wax kii daa tegle xoolal tubéy ji xoolal pàcc ku sol pàcc tegle ko xoolal rek nañ simeeku barki alxuraanu karim bu ñu simeekoo dinaa ko def tubéy ji ñaari tubéy la sol barki alxuraanu karim kii non léegi léegi léegi gars yi non léegi nañ xool biceps yi ak ak non am na loo xamante ma ko defee si kaw gi lay jëmi def la armeel waxuma ko ak moom. ci alxuraanu karam waxuma ko xisi mi de. barki alxuraan boo xam feeñ ay sidit ñaari tubéy la sol ñaar. loo xamante ni sax dañu kaa <laughs> ma jaay si loo xamante ni am na loo xamante dañu kaa dénk du ma ko def. doo ko def de parce que yow xam nga ne bés. <laughs> yow non sa wax jee bari sax. dana bari kay. ragal nga tàppe nga. daf la jëlee avance bi de tubéy ngay sol. bu ma jaay rabaja. waaye rabaja dafa di wax. dama liggéey ba taxaw alxuraan. yow ñaar séance nga def entraînement. dama ne la Ousin ñun ñu ngi suñu liggéey. di dem pour xaar saison bi pour tëj ñu nekk parce ñun ay mbëri ndaw la am. un mois maanaam ñun du ñu xaar saison bu tëj. moom laa lay expliquer ñun ñu ngi si guddi ak bëccëg. Mhm. di def li ñuy war si làmb. amul lenn lu ñuy bàyyi si làmb loo xam ne dañuy tardel lépp lu war si làmb rek ñun dañ koy def waaw lépp lu war si làmb ñu dañ koy def kii mooy li ma lay wax bokkuñu raas yaa ngi dégg te am loo xam ne bu ñu ko defee ñu ay kilifa moo topp suñu ginnaaw am na lu ñuy def sax dañ naan émission baa ngi nangam ba ngi nangam teru ko fa woon te bu yëngatoo mu yëngatu fii yaakaar naa dama koy dóor mu wàcc fii léegi émission bi tas ta loolu doo ko jaar. kon boo nee saaga ba ma la nee saaga ma lan moo tax saaga waa doom. waaw non waxu saaga a la saaga da a gis saaga ma nga xool la dinaa la wan lu ma mais émission la nu nekk lu saaga am ñoo xamante ne ay kilifa lañ du ma ko def wallaay lancim li ma la mujjee wax moom laa barke Serigne Touba waa tapet laa da nga digul ma wax la tapet laa. sa saaga ma ko saaga ma. dañ laa luxus la. trois heures la woo saaga la. dañ laa luxus calambeer nga. fii émission la ma luxus moo luxus la. dañ la luxus yow dañ la luxus yow. pour te dire pour nga dégg loolu. nee nañ maa luxus dañ ah, la moo luxus kii xanaa. dama ne dañ la luxus. ki la luxus ki ma luxus moo luxus. dama ne yow dañ la luxus bokkoo si àdduna yow. ay dégg dégg wax sa race bu bon bi yow race si meekul si meekul nga xool ku gën a baax tànk. moom kaw lay wax tableau armère. tableau armère la. barki yonenti yàlla Muhammad ki day mi kilewu dama ci suuf si laa taxaw waxal ba laal ma waxal ma la dóor waxal ba laal ma waxal ba laal ma waxal rek ba laal ma mu xool ba xam ragal laa wala tapet laa mas bal tamba boo ma laalee wala wax la ma dóor boo ma laalee ma wan ni la laal wax doo bandi yow man nga maa laal yow toogal toog leen boo ma laalee ma tumbale yow laal ma lay rendi toog leen soxla wu yow man bu sita laa soxla fa laa teg sama ma man dama laa xool si raas yow ma la si raas yow xamoo raas xoolu ma la si raas seen baamal jaaree nga dëkk yebooy nga xam moom ngay dundee xetu jën ñu may bëgg a rey sori ma bu ma jege waat de mooli maa ngi leen di ziar ñoom ñëpp di nuyu sénégalais yi waa léegi Mawla tey moo ñoo ñu jox xaalis tey. xoolis un cigare. dama ne la xoolis. raas bu gàtt bi bokk. weccet la ñuy war weccet. <laughs> raas bu gàtt bi bokk ci làmb. mais la ragal la tapet la amul fit ñu ko bëgg. waaw. la moo parce que moom waa noonu. waaw déglu ma déglu ma doguma ma déglu ma doguma la. kii man. Ouzin. wax dëgg fa neex yàlla man. xeebu ma sama bopp de. waaw. defuma it sama bopp mbër bu ndaw. Mm-hmm. ndax daa am lu topp sama ginnaaw. Mm-hmm. su ma jugee gis nga luy topp sama ginnaaw. Mm-hmm. man ñooñu laay bëreel mais ñëweetuma làmb comme na ma daan ñëwee làmb. noonu la ñëwee làmb. defi xale defi xale xam nga rek ñun dëgg la tey jii nii ñu ngi sant bu baax a baax bi ñu amee suñuy garant ñu jàppale suñu waa koñ. Mhm. commencé ñoo fekk si ndax ba ñuy commencé ñun kase la woon. Mhm. ñun ñett la woon man ak Cheikh Omar Cheikh Tidiane ay Biram Tine mhm. yeneen gars yi. barki Mouhamed laa a gënal dem nañ ba instant bii nii am nañ suñuy grand yoo xam ne buñ gersoo ñu ngi leen di gis ñu ñu mel ni abo yaa ngi doon déggante moom sànq depuis bërki semaine ba léegi mi ngi bëgg suñu émission mhm. kon amaana ñooñu la bëreel mhm. ak xale yi sama xale yi koñ ak samay maire koñ wallahi azim laa la gënal bu ma gëmee làmb ñoo tax laa wax ma fonkaan laa am na fii man di bu may laaj xam nga laay laaj ñi nga xam dañoo bëre wala ñu siiw mais man ku bëre trois defoo fi dara waxuma ak yow de dara nga fi waxuma ak yow sa carrière baax waaw waxuma ak yow mënoo tëj sa làmb defoo dara du yàlla ngaa nga moom tax may wax kii nga may tontu yow ngaa nga xam nga eau de ba mu yàqu émission da ngay sol yére set normal nga ñëw celui-ci ay àdduna moo lay xam nga laa sol sama kaaraange laa sol waaw xoolal ajeewata waaw kilifa yi bu <laughs> dama ne dama ne. seenu xaj bi. seto kii góor a xoolal góor a afiya kii Zeyna la Zeyna. pitbull bu ndaw boobu. pitbull boobu Zeyna ngi nii. yow dal la luxus. waaw léegi ma dal la luxus boo ko. combat bi adduna yow. te doon nañ la ko wax. waaw la moo taxaw. man raflé wu ma promoteur. Mhm. man maa rafetlu promoteur ma déggoo li ma la wax de sànq ba tey maa la koy wax nee naa la quatre promoteurs woo nañ ma barki mhm. Seydina Mouhamed. tuuti waaw quatre promoteurs laa la wax woo nañ ma. kii laa tegul sama bët si moom ci làmb bi ma ñë bi ma ñëwee laa wax ne gis ko walla azim Ouzin li muy yow la mais bu doon keneen la hmm. bu fekkee du ma jéggiwaat ñibbi yàlla naa faatu yow ndax kii toog ak moom émission amul lu ma rendement waaw toog yow émission ban njëriñ la ma man yaa ngi ni Sénégalais di la xool di la xam amul lu ma intérêt di tëb di daal nga naan daf may nga naan tapet laa. woo naa la 3 heures du matin. yow soo jëlaatee sama numéro ma fekk la sa koñ. amaluma intérêt. yow toogal yow barki fii dina Muhammad amaluma njariñ. maas yooyu mën wax est-ce que est-ce que hmm. wax nga jël combat bi tëj sa lambe combat bi dama ne la bu yaroo ma jël. ba tey yow yaa non yaru woo de. Ousseyn yaru naa bu baax yaru woo de yaru naa franchement yaru naa quoi yaruloo la de man maa lay yaru <laughs> Ouzia nga yaru ma jël la bëreeg yow ndax ma de ndax dëggu boo yaruwul du ma bëreeg yow ndax dëggu na si yow kilifa gi ma yaru barki Seydina moo xam gi sëñ Moustapha Mbacké borom saam boo yaroo ma jël la yaru naa mais boo baree wax mbembem yaru la jël amul boo ko daanee na la yóbbu sooy kii bis bu jëlee kii déggoo ma de bis bu ma nee la kii daa la ko avancé koy jël dama koy daan te émission bi dañ koy jox cër bi mu moom am na lu may ñëw si moom li may yóbbu du ko xam teegu fii ragal armeer yi yaru naa wat na si kilifa gi te wat na te te yaru naa am naa yar kii ay ree la ma def ci këyam bii barki yaa Rasulaay xanaa waxoo da ngaa yaru yaa ngi dem nga di violé de wala da nga bëgg mu noppi toog bañ a wax barki sëñ Bamba bu yaruwul tegu ci code bu ma ko jël billaahi wallaahi wa taala di gërëm sama silwaay bu baax ndax mu jël la parce que eh. promoteur bi nee na moom déggoo ma de ci man la basé wu eh, man maa yëngal léegi ndax moom mën a jël combat bi waaw léegi nee na nga wax ma yow laay waxal man maa yëngal loolu la gaa yi wax te maa koy yëngal maa xool nu ma neex ma yëngalee ko moom day yaru ma jël ko mënul yaru mën ni ko fi ñukk dem jëli beneen booy may ko sans sax nit ñi xam ko mais kii ngaaka la wallaay lancé xam nga lamb laa wër lamb millier lamb bandi làmb joo xam ne. yow de man a yow man a yow boo ma jëlee lamb milieu da lay. doo ko tëddee Serigne wax fi mu dëkk foofu dañuy daw si man. dañuy day sóob wax lu am bu Seydina Mohamed. xam nañ ma bu baax a baax. fekk li ma ko xamal bu ma ko xool àdduna toj. parce que day jaxase société bi sànq ba tey mi ngi koy wax ngir jëmmi borom saam mi ma na ma xamal li mu wax. non boo ko jëlee ba pare après boo ko Ousseyn dëkkee. boo ko ma bëree ak yow. waaw ñëwal. boo ma xamal yow. ba tax nga toog si télé bi mel ne kii di yàq der. man loolu nga ma xamal dañ la luxus dañ loolu ma xamal mais xanaa ki ma luxus moo luxus kii dañ la luxus <laughs> ah yow calambeer nga dañ la luxus xamoo ci dara sax boo ko si koy wax euh. ma dóor la nga wàcc de soo ñëwee dama lay nga wàcc moom dama ne la dama lay dóor nga wàcc yàlla xam na ne kii ay ay ay coup génne ko si làmba ji de te man ak moom dinaa signé ak promoteur bi ay kong moo koy génne si làmba ji yow mi kongat di daw di bëri di ka kong ba mu daanu ñëwal kong am. jëlal la avance dóora ñëw jëlal avance bi. yomb na si yow. waa Diamaguène a gis ñu dóor un ba mu un waa Diamaguène ñu jël avance bi. na dóor waa Diamaguène na jël avance bi. non bu la dóoree fii dootoo bëre. kooku mu la dóoree wóor xam na ne su ma la kongee émission bi day yàqu. yàqu du ci yàq dara wallaahi lazim day yàqu. yow su ma la kongee kongoo yow. Ah, yaa ngi may kong yow kong ma ah. ma kongal. Ousseyn nee na ma yaru bu ma yaroo mu jël combat bi. yaru na si barki sëñ Sam wax ka ah, waaye bul sal bul wax kii de dama ne la wax kii ñëpp lay ñaan sama sëriñ la aduna mag la <laughs> sëriñ bul daw laa ko dof yow da ngay nalaw ci jàmmaarloo ñoom ñaar laa invité nekk sa kanam dëgg fa neex yàlla un dem bëleeg Malick Ndiaye 37 fou moo ko ëppal coow fop day sóob rek ndax man saa waa Louga dañoo topp sama ginnaaw waa sanc ba sidd waa jëwriñ waa dëkkandoo waa are kër suñ xaadim waa penc di nuyu papa ceebu Louga mhm. Balla Gaye bu dagaj papa cuuj di nuyu Touré ñoom ëmadi àdduna laax ñoo may xaar ñoom laay bëreel mais pas kii kon ñooñu su may jël làmb damay jël làmb joo xam ne maanaam làmb ju am coow la te man làmb bandi laa soxla loolu lan moo tax nga bëgg làmb bandi ah te du ne ay bandi lañ bàyyi maa ngi ñoom ci biir géew bi ba xam kenn dina ci appliqué duñ puus duñ paas barki Serigne Moustapha Mbacké imam borom saam loolu jël avance bi rek nga koy ma yabe hmm. wala may dox ñeme woo ko sax may dox mbedd mi wax ji dafa bari na jël avance bi wax ji jeex ñu éliminer lépp dem liggéey ba tey jël naa ko nee naa wala nee naa la yaru naa yaru woo ndax maa ngi nga may tontu ma da nga yaru croiser le bras def cooc ma wax ak yow nga dégg waa yaru na avance bi waaw waaw waaw xettali la may la bëgg waaw waaw jërëjëf ma nee la man maa yëngal waaw yëngalal waaw yaa may may sens waaw mais nag maa mën a may chance kenn da laa xam ba may may chance yaa bëgg chance yaa bëgg chance yaa ma jiitu ci làmb maas Ousseyn ma yaru mu jël combat bi mooy sama bénéfice ñetti baat yaru naa ñetti baat laa lay laaj waaw comme ci nangoo tontu ma diglu ma ma jël avance bi waaw yaa ma jiitu ci làmb waa maa la jiitu ci làmb waaw baax na waaw yaa ma dàq bëre maa la dàq bëre waaw yaa ma ëpp yarul waaw yaru waaw yaru naa waaw. yow nee nga waa caare géej yaruñu la. dan maa yab waa caare dan maa yab yónni ma yàkkamti ma. ku ñu yónni da ngay yaru. jàmm gën a xam nga xam la ngay wax boo yegee da ngay yaru mais bu ñu la yabee rek da diis gann. am na la mel ni gaal gu diig. li na si man. defal li na si man li na si man li na si man a tax. man ak làmb du ay caaxaan. lamba ji topp suñu ginnaaw dañu jël xaalis bu weex tal Ouzin di di ko def suñun ba tax na bu ñëw si signature sànqa yaa ngi wax benn wax boo ah, xamante ne danga xam laa la wax ñetti banaana la sànqa yaa ngi wax benn wax boo xamante ne danga sàcc si wéewu bay daan mm. sànqa da nga wax boo xamante ni da nga ko sàcc si wéewu bay mm-hmm. parce que yéen sax da ngeen defaru seen bopp ba xam li ne si mbëri mm. avant may dugg di ñëw mm. lépp laa xam ba may ñëw laa am li may def nga damaa ibbi rek nga wax nga ne combat bi taxawagul ngi def seen yii nii ñun dafa am nu ñuy ñëwee ay kilifa ñoo ñuy encadré. ba sa làmb yi xam làmb yow yaa ngi taxaw te kilifa nga mais may ah, man waxuma ak yow kii mais mais booy wax naa droit foo wàcc fa la jëm. mu seqal ak sa wax ak moom man li ma seqal moom laay wax. yaru gi muy ma jël combat bi damay yaru mais wax ji dafa bari. nga bañ a yaru. barke Muhammad ngir yàlla un ziga yaru naa jëlal. a yarul doo siiw. waaw jëlal yow aw siiw naa ngir yàlla ngir yàlla <laughs> yàlla rek yaru naa jëlal avance bi. gars yi yéen a ko gis ne dama koy yar ba mu nodd. wallaahi bu ma yaree ba mu nodd bu jëlee avance bi. <laughs> bu ëllëgee dootoo ko defati parce que dootul bokkati si làmb. Mhm. wallaahi angime. yow yaa génnee ci làmb. wallaahi dama lay dóor. gis naa loolu ba ba ba nga wan na sa làmba ñu. mais xanaa da koy janneer boo yarul du ma la jël de doo dóor de. déggoo li ma la wax de yow fu toll nii dafa may da ngay daw laaxu man yar naa. daw laa xool. Ah, ci kan ci kan si làmb. kat booy xale ma jëli man yàlla xam ne dama lay daan dem xooli leneen. boo yarul doo ma daan. nan kan lay bëre xanaa ngoy génn man lay neex ma yëngal jël avance bi nga bëre. aussi ka yow man maa ngi promoteur boo jëlee avance bi. wallaahi avance bi naa la si dolli xaalis. ñoo si dolli temps bi jeex na dama lay dolliwaatal xaalis. yow nga dolli ma xaalis. dama may ma junni ma jël combat bi. may ma junni yow xaalis ngay kon. may ma junni ah, utulu ma benn palmarès xaalis laa ji ut ma dimbalee sama yaay. waa ñëwal mais bëre yow amul lu ma benn rendement Mass Bal Tamba maa la dàq bëre maa la bu doole oh, oh. su ma feccee mu neex xanaa ah, déggoo ñun la mbër dafay bëre ñëw si làmb ji ñëw daan baa koo ko gën laa la wax sa wax ju bari ji dina ma neex ñëwal waaw xam nga daa déggul dama lay ñamal li ma buuba tëggal nee na mbër dafay bëre tagi gi gis a gidd am doole te réew kit gi gin mbara mbax rafet rafet bëree am caac ca la muy bëree kaay tagi gi gisa gidd cacac kit gi gin mbara mbax tac gi jara gidd kin tac pax gid ca kit gid ca gisa gidd ral lu bees a bees ndaa teel la nga koy dégg mais xam la laa lay indil yow xam lu ma lay indil xam lu ma lay indil day day day man foo ma si lamba mais ndaa teel ko tagee dafa neex doo ko yeggali maa ngi maa ngi sant sama sinuwaay yi Sinwaa ay vite fiscales tin ay immigrants. Sinwaa bi ni nga woo sax woo borom géej. mu génn ñëw amigo jàppale la ma daan leen ngeen delloo. mais mu woo Sinwaa yi. amigo astronome na ndren skin vite skin yaa un skin instant yaa éliminé tri wallahi lazim yaa un skin gin tay fen tay fen tay fen un good skin gin wallahi laazim billaahi voilà di sant sama nag yaay booy sama sëriñ di ko santa bu baax a baax a baax a baax a baax tàggatoo tàggatoo Ouzin maa ngi sant sama yaay mm-hmm. di sant ñoom alaaj Demba xam nga ñoom ak sama ñaari gaay yi ma àndal kalaba xam nga di ka ñaanal pour mu préparer nag xam ne làmba moom dafay bokk quoi xale la boo xam ne dañ ko denc muy at tamit alaaj jëmba xale boo xam ne dafa war a ñëw xam nga nekk si làmb ñu war a ñëw war war a booy boobu ñu ngi ko laxasi ginnaaw pour préparer ko tamit encore une fois gërëm ñëpp di gërëm Pambay Souley day jël xaalisam bu weex tal di ko def si man xam nga kon donc maa gërëm ñëpp di gërëm mool yi ñoom Papa ñoom Samba yi wàccaale yi gépp leen gërëm ñoom Xaarim Njaay xam nga waa kër ga ñoom Ami Ndaw ah, ñoom Ngoye Ndoy mu yaaba ñoom Marsi la ñoom Jaara ñoom Nday Ñang waa kër gi yëpp daal maa ngi leen di ziar. te hmm. ziar nag monde entier parce dan may on sax ne ma barke rasulilahi yaa ngi yaa ngi toj Sénégal ma ne leen lan moo tax may toj Sénégal ñu ne ma barke rasulilahi da nga bokk si lamb maas. Hmm. ma ne leen lamb moo ñu ne ma loolu terul ñuy koy wax. parce que tey jii dafa am loo xamante ni Ouzin man dama bëgg dimbali samay waajur. Hmm. te wallaay lancé kii taxul. temps bi may dem di xool sama bët si moom. wallaay kii taxul maa ngi xooli ñeneen ñoo xamante ni ñoo ëpp kii wala téeméeri junni yoon man du ma dem di xool ji ay laadum war ka wala xool ji laadum di dem xool ji ay coggal kii dànk rek dem sama yoon laay def aw ma sax xëy ci paase coggal ngeen coggal waaw parce que xaru coggal moom soxlaw ma ko sax boo paree nga wax ma yaa ma gën a xam mooy loolu maa ngi ziar ñëpp seen fay waaw di gërëm Ibou di gërëm Pambay ñoom ñëpp maa leen ziar waaw di gërëm alaaj jàmba bu baax pare nga kii xoolal gis ni mu calmé fii nii. tilim hmm. bi sax doxatul. ndax moom ba pare da nga waxee ba pare ngay noppi suba ba tey yaa ngi sant sant sant sant yow amugoo combat di sant ñooñu defaguñ ci dara da ngay woote ñu jàppale la naan maa ngi woo diw ak diw ak diw loolu bokk na ci sa langage bu beneen nee na ngay wax loolu dégg action demal sa wax ji dafa bari eh dama koy conseillé waaw manoo maa conseillé xanaa xanaa waxuma la nga yaru bu ma yaroo nga jël combat bi. waaw naa <laughs> jël combat bi. ngal a jeewata. a julle maama de. <laughs> a xurang xay. ngal ak yow daa war na Serigne Touba Mbacke wala ñun dañ koy neexal ba mu neex. Ousseyn ka ndax yaru na jël na combat bi wax tontu kasi loolu. ba pare Ousseyn. ma nuyu du ma Ousseyn tontu ba pare. ba ma woote ba pare. a gën bëgg bëre. Mm. man ambiance moom may dundal. Mm. waaw ndax bu dul dara man dafa man ay xale ñoom mm-hmm. ñu dëgg la amaguñ kenn ku ñu jàppale. ku yëkkati xaalisam bu weex tàll di ko teg si ñun naan ñu lii amaguñ ko barki suñ tuwaa booy ñoo ñuy jàppale seen i fukk ak seen i juróom mhm. ay ñoom prési waa mafia xaar yàlla su ma limee tur damay juum waa bonoon son waa mbedd mu mag waa tëli karo suñ waa garage maam jaara ba faas waa fora mhm. waa porte boukiya xam nga porte boukiya ñoom maykal mhm. leen bëggee fi ñu reyee nag yi képp ku lekk yàpp rek fora la jaar yàgg ñu yabooy de yabay moo ñuy dundal parce que dañuy xëcc si mbaañ ba feere dal <laughs> amuñu lu ñuy sóoraal Fatim Tour yëpp yi fii laa la wax lu leer laa lay ne la di woow waa Louga waa Louga laay woow waa Louga waa Louga waa jàmm gën si kaa mbaaw dañ maa yónni yàkkamti ma mhm. mais sama waa dëkk dañoo jug pour jàppale ma mhm. di sant suñu waa kër samay ñoom yaay mhm. samay tànta su ma limee damay juum suñu waa kër googu maa ngi leen di sant di waa arrêt kër xaadim waa Elton ba sëñ Mamor Afia Baye Galas Afia Gora Afia lépp lu wër sanc ba noor ak waa jëwriñ ak maa lay nuyu di la bëggee fa laa nekkoon. Mm. chaque jour junni laay ndékkee juróomi téeméer laa añam mbaxalu saalum ginaar laay reeree te entraîné gu ma de ndax damaa gisagul maanaam avance bi ma bëgg. entraîné gu ma de sànq ba tey booy dañuy simi kaw ma man tableau armère yooyu ma ko naree mel si làmb yàlla ma yàlla a yamale fii sama carrière waaw non mooy am na benn kii bu ñuy defar nii benn genre kii tableau gisoo suuf gi benn weñ la kaw gi mooy doon benn plat gars yi noonu la ñuy joobee kaw gi la ñuy liggéey bàyyi suuf kaw gi yomb na demal saal épaule tuuti naan tey vitamine da ngay leer nañi Ouzin pecc waxuma ak yow de ki waxal ba tey waxuma ak yow waxuma ak yow bi ngay wax dama laa toog dama wax dama laa déglu. Hmm, Ouzin da bari wax tàmbalil. xanaa laaj ñu ma. waxal action. boo yarul du ma la jël. waaw yarul demal. yarul bëgg a dégg. wuy ma gars ni ñu joobee daaxuñu ñu ko. Hmm. ñun dañoo nekk ak suñuy coach. Hmm. boo demee ba Louga am naa fa coach bu ñu naan Gora Afia. Sal Kona ñoom Bolo 2 mbëri Louga roi des arènes Louga yëpp dama faa dem ñëpp fonk ma jàpp ma téema nii mu leer ma ni foofu maa koy yëngal. Mhm. kon damay yëngal fii yëngal fële te damay yëngal àdduna mais Mass Bal Tamba damaa bëgg Sénégalais yi xam ne mu yaru ma jël ko bu dee bëgg nañu bëre. waaw yaru noonu. lamb bandi laa doon wër mais ma lamb ngaaka. Mhm. lamb ji ma bëgg a jëlaat nii nii nii ba waa Louga jàppale ma rek. cinq tata laa bëgg a commandé foofu noonu ak ay G cinq tata ak ay G. bus di nuyu chauffeur bus yëpp chauffeur war gaynde yi ñoom ñëpp ñu ngi may xaar barki Seydina Mouhamed li ma la wax ni bu dee amul yàlla fi sama carrière yam ñoom ñëpp ñu ngi may xaar. kon xam ne su may ñëwaat làmb bandi laa soxla mais waruma koo xam ne day ñëw si télé bi di wax munut fecci munut wax munut njàpp si meeku kaw. kii mën na fecc li may def. waaw Ouzin loolu yow teg nga si bët. Mass moom mën na fecc ñu la joxoon ay milliards laa la wax. ni la teg ko ci Mass Bantamba ak 1 ku dàq fecc ku dàq bëre. yow sa xaalis barki Seydina mu xam ne doo ko teg ci kii. loolu koy séddale. Ouzin séddale Ouzin kii bu demee ma dem ah. làmb daan ñuy wër bokkuñu. dama ne da nga ko may mais dane day dane dane lekk. dane day lekk ah, ah. Ah, jën ko may tuuti. waaw dane day lekk yàpp. ñun gis nga ñun. papa ceebu Louga lan moo ñu la may jëndal papa ceebu eh. Louga. ñoom amul man man yabay bi. la ñuy toppa. waaw léegi man yabay bi moo ñu simil tànk man tànk yi rek laa bëgg simil ko. simil tànk barki alxuraan du simi tànk yi kii tableau armère la man ku may jaay kaw waxuma lool noonu kaw nii léegi man len leen laa leen ñaan leen laa leen ñaan waa wuy ma leen laa leen ñaan ñu tëjee ko yow a tànk yow mën a yow tànk yi simi ko simi sa tànk kii ba suba du ma laal fii rek du ma Ousseyn gis nga la respect la du ma door yow sama yaram yow pour nga gis ka du yomba. li ma bëggoon mooy li ma bëgg nga gis ka fu nga la ñam. yow boo ma jëlee dinaa la. ñamal ma ren de. man la lépp dama lay rey. nag ma dóor rek li ñu amoon ci temps jeex na. di leen di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen ba ci Wassare Lamb jàmmaarloo jaa ngeen jëf.